en tout euh, lu ñu mën a wax mooy que démocratie bi doxul. doxul ça c' est clair que suñu démocratie am na am na am na problème. Mhm. Euh, maintenant fii euh, diggante Ousmane Sonko ak nguuru Macky Sall problème la. c' est un problème c' est un mhm. parce que li ñu tëg ci ndodd Ousmane Sonko jéggi na dayoo ah occuper kër nit ki quand même amoo benn. kayit bu la juge autorisé wala tribunal autorisé yow euh, ministre de l'intérieur ak ministre de la justice ngeen jël seen décision occuper une maison d'un chef de parti loolu problème démocratique la parce que Sonko quoi qu'on dise c'est un opposant il a tous les droits les, les libertés individuelles les libertés collectives d'autant que c'est un chef de parti et un candidat à la présidentielle donc loolu pour man euh, président Macky Sall warul nangu loolu ci fu ñu toll ci démocratie. mais doyen doguma mais est tous les droits. mais si. tous les droits. non il a tous non les droits les droits les libertés. Ah, moo tax ma bëgg a dellu si wala nga a les droits. de parti il est candidat. Mhm. bon mais kooku mënoo ko tere dem. dans le pays non parce que soo ko teree da nga war a tere ñëpp. alors que jusqu'à présent man dégguma benn chef de parti opposition wala pouvoir bu ñuy teree def campagne mhm. j'ai pas encore vu muy Khalifa muy Gakou euh, muy APR muy euh, tous les partis sont en campagne tous les chefs de parti candidats à la présidence ñu ngi dérouler seen campagne c'est le problème de leadership c'est le problème de leadership un problème de leadership donc le mhm. droit de mener sa campagne il est mhm. investi par son parti pour le moment en attendant peut-être son congrès non Ousmane Sonko am na liberté boobu caravane bi mais mais caravane du jógul ci Ousmane Sonko Abdoulaye Wade moo njëkk indi ah. fii des des caravanes Macky Sall marche bleue 2008 <laughs> ba 2012 mais Macky <laughs> nekkul woon sax ci Ndakaar ci àll ba la nekkoon pendant quatre ans mais kooku mënul dellu am nguur nga tere sa adversaire def li nga doon def au contraire daf ko waroon euh, je pense que dañ ko waroon sax féliciter le fait d'avoir le courage d'aller dans les dans les région de, de rencontrer les population donc loolu laa doon wax les les droits bon maintenant beneen droit bi mu gën a choqué man c'est que Sénégal warul nangu armée bi quadriller kër nit ça c'est exceptionnel c'est vraiment xaw ma sax ban cas cas de figure la ñu mën a nangu lool mais à l'état actuel amul benn justification bi nga xam ne euh, xel mën na nangu euh, police gendarmerie nekk kër Sonko waxuma sax Sonko c'est aujourd'hui les populations ci seen bopp ñooy joytu que lii diis na li ëpp na il faut que le président de la République amoon mon bi bon euh, de mu arrêter loolu l'occupation de la maison de Sonko ñu arrêter aussi interdiction de la caravane de Sonko mais maintenant gérer le premier juin comme ni nga ko waxee ça lu ñu gis nii pour man du bett kenn le premier juin ñu condamné Sonko mu dem prison wala ñu privé ko présidentiel kenn xamul lan la na rujju donc là il y a un problème d'anticipation est-ce que gouvernement bi warul anticiper avant que avant le premier juin ñu xool comment gérer c'est une situation euh, délicate bon maintenant beneen côté sur la question démocratique c'est que mënuñu nekk ci réew mi bi nga xam ne opposition yi mënul wax ak pouvoir mais ça c'est inimaginable. dans la limite dans la limite ça frise la haine en fait. Bah, bah ça ce n'est plus on n'est plus dans la politique on est dans la haine de l'autre mm le, rejet de l'autre mm-hmm. et, et moi je ne sais pas est-ce que ils sont conscients que que ils font ils font énormément mal aux Sénégalais